salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu waa mbooloom as samad maa ngi ziar ñëpp di nuyu sëriñ Abdou Samad ibnu Cheikh Chouaib Mbacke ñaan su borom doole ko tawféex ba yéen yi nga xam ne am na ko ci am ko ci jullit ñi rawatina taaliba yi ak waa alquran yëpp ñaan na su borom taxaw ko ba. kàttanal ko ba lim ci yéene yëpp mu mën ko teñ ànd ko moom te fekke lépp e, tey nag waxtaan wi mu ngi jëm ci wàllu e, as ngarab wala ci garab yi gu ñuy jëfandikoo lu baree bari xëy na ñu bari sax ñu ngi koy jëfandikoo ci fekk ñu di ko jëfandikoo noonu rek wala ñu taamu ko di ko jëfandikoo wante jàpp ñu sax ne léegi lu wara am njëriñ la ñenn ñi lu neex a tax ñu di ko jëfandikoo am na nag ñoo xam ne xëy na xam na am nañ ci ay firnde yu ñu am ci wàllu wér yaram di ko jëfandikoo muy si xaw si xaw waxuma sax ci wàllu wér gu wante ci wàllu dund ndax dañ ko boole ci sunu dund ñun ndax ñu baree bari da nga gis ne léegi dañuy ndékki ndékki moom lañuy def. boo demee ci barabu jaayukaay yi it lekk it da nga gis toujours ñu taamu ko ñoo xam ne su ñëwee moom la ñu taamu di ko jëfandikoo xëy na am na ci ñoo xam ne li ma wax noonu neex gi moo ci nekk ñoom am na ñoo xam ne xëy na seen i ñu ngi tawat yoo xam ne xëy na gis nañ ne lu ci baax lañu di ko jëfandikoo mu bari njëriñ lool nag nekk it loo xam ne toujours lu jege nit ñi la bu dul gajj gi nga gis ko ci dëkk moom danañ ko indi ba mu jege la xam ne soo demee ci barabu jaayukaay it da koy fekk ñu di ko jëfandikoo ñu di jëfandikoo xob yi ci lu bëree bari di jëfandikoo ba tey renam it ci lu bari ba ci taaxaar bi noonu ñu di ko jëfandikoo moom itam ci anam lu bëree bari bokk na ci ay njëriñam nag surtout ci wàllu xob baax na lool lool lool ci li ci gën a siiw gën ki miin mooy lu mel ni que wàllu ñu am tension bi yéeg ñooñu moom yaakaar naa ne lu baree bare bari am nañu ko taamu sax ci di ko jëfandikoo surtout di ko ndekkee ñoo xam ne dañoo taamoon café di ko ndekkee te ñu am tension boobu di yéeg ñu moytu leen ko ñu ci gën a bari da ngay gis na ñoom ci moom la ñu yenu te loolu it ay firnde yu wér a yu ci am bokk nañ sax même tension bi lu mu garaaw garaaw garaaw bu fekkoon léegi da nga am xobam yooyu rek am ci sa ngëbu lox nga def ko ci ñaar litre ndox wala baxal ñaar litre ndox sotti ko ci yenn da koo naan def ko comme sa ndoxu naan lum yéeg yéeg yéeg boo ko defee ay fan da ngay gis ne macha allah suñu borom day def tawféeg ba tension boobu léegi day wàcc bu baax sax ba ci ñi nga xam ne sax dañu am jafe-jafe wàllu tuur ndox te loolu démb rek am na ku ko firndeel koo xam ne moom sax lim jàmbatoon gën naa doy waar lool ndax ndax gisoo buy tuur ndox moom dana am lu ci rax day xonq tuur ndox moo xam ne ba loolu jaaxal ko lool lool te yàgg lool it ma faj ko faj faj ba tay wante bi mu amee xob yi e, si xaw yooyu e, kinkile ba wala dute boog ñenn bi ko amee. baxal ko ba mu ñor boole ko tuuti jar di ko naan nee na damaa dem ba mu yàgg rek yëgatu ma ndeke affaire boobu dëñ na bu yàgg sax te waxuma loolu sax waaye boole ko yeneen yoo xam ne tey tàggoon naa moom yoo xam ne da ko doon yëg ci wàllu jafe-jafe kon gis nga ñi nga xam ne dañu am jafe-jafe ci wàllu tur ndox te loolu lu mel ne xeetu infection urinaire yi mën na koy def kon suñ amee xobi saxar yooyu baxal ko di ko naan baax na trop. wala ñu def ci comme li ma wax noonu tuuti jar wala ko moom dëgg di ko jëfandikoo xam ne du ci saf daanaka da ngay laal na ko rek waaye du ci saf-saf googu nga di ko yëg na trop. ba tey bokk na ci njëriñam moom xobi si xaw yooyu moom itam su fekkee koo xam ne biir buy daw da ko yab te loolu am na ay jafe-jafe yu bari yu koy def surtout jafe-jafe yu layal wàllu colon butit bu mag boobu Mm, mën naa am ay jafe-jafe yu bari yu ci yu ciy nekk muy gis nit ki ba diiram di da yomba daw te sax du tax du dugg moo xam ne lu may lekk la wala yu mel noonu kooku it baax na ci moom trop bu amee xobi si xaw yooyu moom itam léegi di ko baxal léegi di ko naan suñu borom mën na koy defal tawféex ba loolu mën na koy saafara gis nga jàngoro yi ba tey di laal wàllu res moom itam baax na wàllu foi boobu waxam nañ ne képp koo xam ne léegi xëy na signalé nañ ni mu gis lu mel noonu mu am fuyar fuyaar yooyu boole ko xobi eh, eh, kinkiliba mm-hmm. yooyu boole ko xobi papaay ak sungu fayar ñett yooyu mu di ko jëfandikoo dara dara gënu ko ci wet ko kon ñi nga xam ne gis nañ ne léegi doom jàngoro jooju léegi dañ koy am te mooy lu xaw xorom nga xam ne tey bari na lu baree bari loo xam ne mën na andi gàllankoor ci dundu doomu aadama suñ ko yëgee mën nañu am xobi kenkele bàyyi wala si xaw boobu wala ko xobi papaay ak sungu fa fayaar da ci jël lu yem fekkee mu wal ko lépp sungu fa ko da ko jël par kudd ndaw def ko ci litre ak genn wàll ci ndox comme butéelu Evian bi baxal ko ba mu mu teggi bàyyi ko ba mu set mu di ko naan par kaasu lekk te moom lu lewet la ndax ñetti garab yooyu amul benn kii dafa daanaka du du ko yëg su koy jëfandikoo ci tawat yu nga xam ne day laal wàllu foie boobu yàlla mën na koy defal tawféex ba loolu bokk nañ ci yi nga xam ne da koy saafara moom ba tey bokk nañ ci ay njëriñam moom. si xew boobu ba tey e, ñi nga xam ne dañoo am jafe-jafe ba tey ci wàllu roño yooyu mooy dëmbeen yooyu di métti day wax fekk lu mel ni comme li ma infection yooyu mooy xeeti tawat yu nga xam ne day la wala day lakk day métti lool surtout ñi nga xam ne dañu am xeer calcul rénaux yu mooy xeex xeer yu nga xam ne da koy ñi ngay gis xam ne ndigg yooyu di métti ci côté yi su nga dis ku koy jàmbat ne sama ndigg day métti ci côté yi surtout sax mu dem ba nga xam ne tey mel ni day am gàllankoor ci wàllu tur ndox baax na ci moom lool lool moom itam bu amee xobe si xaw yooyu moom itam baxal ndox def ci wala mu def ko ci ndox baxal ko mu di ko naan par kaas ci ngëbu loxoom rek baax na ci trop. Eh, baax na yit ci wàllu bil woon wextan boobu xam ne tey da ngay gis ñoo xam ne moom itam day am jafe-jafe ci yu mel noonu surtout lu mel ne que wàllu pays ak yooyu yëpp boo ko xoolee mu ngi aju ci wet gu mel noonu soo amee moom itam léegi xobam yooyu di naan baax na ci moo tax jamono yi sibiru bii sa mag ñi dañ ko daan boole moom surtout moo la ko xobi saxaw yooyu ak xobi rat ak xobi ngeer boole ko baaxal ko di ko naan dara dara dara lu ko gën ci jamono ji ñu toll ci wàllu sibir yooyu moom amul ndax ma ngi daan nañ ko jël moom boole ñetti garab yu xobi rat xobi ngeer ak xobi saxaw ba tey su fekkee ci li ma wax noonu tawat yooyu nga xam ne day laal wàllu yooyu ba tey li ma wax noonu ci gannaaw même ñett yooyu ba tey dañ ko ci boole di ko jëfandikoo xobi rat yooyu ak xobi ngeer ak xobi saxaw yooyu ma dem léegi di ko togg di ko naan par kaasaayu lekk. baax na trop ndax bokk na ci yi nga xam ne day dindi wàllu tooke ay toxiques yi nga xam ne léegi day nekk ci wàllu yaram boo na ne yaram bi daa deret ji daa salte wala mu def ay doomu jàngoro yoo xam ne léegi mooy surtout ñi nga xam ne da ngay toog nga yëg lu mel ne luy dox ci sa yaram baax na ci ñoom lool ñoom itam suñu amee léegi ñetti garab yooyu xobi rat ak xobi ngeer ak xobi saxaw ko léegi di ko naan baax na ci ñoom trop. ba tey bokk na ci njëriñam boobu ba tey grippe bi ñuy wax nañu ci toll ñu ngi koy jàmbat trop trop trop te mën na ñëw moom grippe boobu li ma wax noon ànd ak sibiru bi wala mu ànd mu kenn xeeti soj yeeg sëqat yeeg yaram boobu di tàng bopp yooyu di metti moom itam li ma wax noonu rek su amee xobe rajo yooyu boole ko xobi ngeer ak xobi sexew xobi saxaw yi moom lay am boole ko xobi ngeer ak xobi rat mu dem baxal ko wala mu tàngal ndox ba mu bax mu sotti lu ñu ne da ciy comp nga ba loo xam rek boole baxal litre ndoxam wala ñaari litre ba mu bax mu sotti bàyyi ba mu kii mu di ko naan par kaas saa yu lekkee mu xeli ci kaas naan dara lu ko gën ci xeetu grippe yi nga xam ne tey moom it mu ngi dal niñ na ak it ñi nga xam ne seen yaram yi day tàng température boo xam ne ak yu niroog yooyu yëpp boo amee xobi si xaw yi moom itam boole ko xobi ngeer yi ak xobi rat baax na jël tisli yeeg ak saqat yi moom itam xurufaan sek yu mel noonu moom it baax na ci trop ku ñett boole ñetti garab yooyu moom itam di ko jëfandikoo sun borom mën na laa defal tawféex ba e, e, lépp lu nekkoon ci yow ci waat wet googu mën na koy saafara rawatina nag si bi bii ma waxoon noonu ba tey bokk na ci ay njëriñ wet surtout ci wàllu jafe-jafe ci wàllu xol ndax xëy na xol bi ni may doxee daa mel lu normalul baax na ci trop surtout muy néew doole boo xam ne day sonn lu def rek gaaw a sonn ko xobi sam fetu ak xobi rat boole ko xobi si xaw yi itam baxal ko ba mu ñor wala mu baxal ndox sotti ko ci bàyyi ko ba mu kii mu sedd kay ko di ko naan par kaas lu yem bañ saf ba mu nag mu yem ndax xobi rajo yi moom mën na yem ndax day xaw a saf su koy jëfandikoo yàlla mën na koy defal tawfeex bu baax a baax a baax surtout tànk yooyu di crampe wala bopp di métti te nga xam ne tey ni xol bi doxee xëy na tax na deret ji du yegg foofu bu baax su koy jëfandikoo baax na ci moom trop ba ci ñi nga xam ne sax seen sukar day yëg nii baax na ci ñoom trop suñu amee xobi rat yooyu wala ko xobi sam fett yooyu ak xobi saxaw yooyu moom itam baxal ko léegi ba mu baax ñu ne ko segg di ko naan sax ñu lekk ñu naan ci kaas moom baax nañ ci ñoom trop trop jafe-jafe yooyu muy indi ci tànk yooyu di métti di cramp noonu ak bopp yooyu di wala yaram boobu di diis boole ko di tayal bu koy jëfandikoo suñu borom mën na koy defal tawféex ba loolu mën na koy saafara. Hmm, bokk na ci ay njëriñ mit ba tey ci wàllu ren yi sutare mi wala taaxaar bi noonu nga boole ko bant yi xob yeeg bant def ko taaxaar noonu surtout ñi nga xam ne am saan ma ngi daan nañ ko mu moom itam boo amee renam boobu baxal ko takk ko renam nga baxal ko si litre gel ba baax na nga tegg ko léegi di ko naan par kaas wala ma xooj ko rek moom amee takk ko ren ñetti ren rek def ko ci butéelu litre ak genn wàll yi def ci ndox ba mu fees di naan di dolli ndox na saa soo lekk na kaas naan dolli waat soo ba yëg na safatu dara nga dindi ko defaat beneen loolu it bokk na ci li nga xam ne mag ñi daan nañ ko faje eh, saan ba ci sibiru boobu it mag ñi daan nañ ko faje léegi eh, ren yooyu daan ko ci aaro bu nawet bi jublu seen nga am ci ay takk xooj ko léegi naan muy baax na trop wax nañ ne boo ci jëlee ñetti takk naan ko ci njëlbeenu nawet bi suñu borom mën naa def tawfiix ba eh, mën na laa aar ba si buru yi lu mu tartar moom mën naa def tawfiix ba mu mucc bu dee soxna soo ba tey daa bëgg njaboot moom it dañ koy def renam yooyu moom itam baax na ci trop boo amee takkub ren moom itam léegi mu xooj ko léegi di ko naan baax na ci moom trop bu dee soxna soo xam ne dafa toll ci am doom it nga xam ne nekk jigéen wérul te bëgg am doom te du somb sonn moom itam bu demee ba ci weeram yu mujj yooyu mu am ko léegi xooj ko moom itam di ko naan baax na ci moom trop kii mën na koy dimbale ba eh, loolu da koy saafara bu dee même ñi nga xam ne dañu am bët xeeti bët yi métti nii moom itam baax na ci trop mag ngi daan nañ ko fañee xeetu bët yooyu itam léegi baxal ko sañ ko léegi di ko sëlmu wala ma xooj ko di ci naan di ci sëlmu saa yu lekk rek mu naan ci sëlmu ci moom it baax na ci lool lool lool koy jëfandikoo suñu borom mën na koy defal tawfeex ba loolu da ko sax kon gis nga ko lii ak sax yu bëree bëri yoo xam ne xëy na dañ koy tënk noonu rek waaye moom itam ci eh, eh, gàncax yi nga xam ne léegi dañ koy jëfandikoo xëy nañ am na ci ñoo xam ne wàllu dund sax lañ ko boole ci ñuy ndékke wante luy faj la loo xam ne tañ ci wàllu wér-gu-yaram lu ci baax lool wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu